tey ñu ñëw gis plénière bi assemblée nationale ñu gis fa discours yi. Mhm. ba ci ñi nga xamante ni yéen a bokkandoo benn parti muy APR. Mhm. ak Benno Bokk Yaakaar ñu gis ñu ci bëri seen discours dafa changé. Mhm. bi ndaw yi jeexee bi ndaw yi deewee mars 2021 la. kenn mësul dégg ku leen tudd. tey mësuñu wax waxi ndàmpaay. bërki démb la ñuy jël benn bus daal di ciy sànni cocktail molotov. ba ñaari xale ñàkk ci seen bakkan. waajur ko góor ki dafa taxaw ne xanaa mu delloowaat lépp ci yàlla. Mm. est loolu ak jéggal bokk la parce que ñu gisee Aïssata Tall Sall en tant que ministre de la justice. Mm-hmm. nga war a àtte lépp nga taxaw pour convaincre sénégalais yi nga ne ndagam kooku moo jéggale est-ce que mm-hmm. kooku jéggale na. Mm-hmm. tey ñu gis ay députés yu taxaw au lieu ñu taxawal fa peuple bi mais mm. taxawluñu fa peuple bi. argument bi ñu amoon mooy Macky Sall defal na leen lu nekk ci diiru fukki at intérêt askan bi d' abord balaa ñuy déglu président Macky Sall. Mhm. waaw euh, Tange pour député yi keroog ba ñu président Macky Sall woowee. Mhm. dafa wax ak ñun waxu gor mu ni mhm. li fi jaar yëpp. dama ko xam. mu metti lool kenn ku ci nekk mel na ni maa la jur kenn ku ci ne mel na ni yéen yéen leen jur mais lan la ñu mën a andi. pour réew mi loolu dootu fi amati mooy dialogue bi ma woote mooy am amnistie bi ma bëgg a def pour benn doomu sénégalais temps samay rongoñ Macky Sall ba muy wax dama doon jooy parce que dama xam ne dafa bëgg a dem bàyyi fi jàmm bëgg na dimbali ñi seen waajur yi dee bu sañoon loolu du am bu sañoon du am am na ba pare Sonko Sonko li may wax ñu may saaga waa Pastef fi te man dama mis seen saaga Sonko moo changé politique u Sénégal sonk moo indi ñuy saaga nit ñi sonk moo indi nit ñi dee sonk moo indi kilifa diine nga toog gis kuy saaga sëriñ Saaliw gis ku saaga sëriñ kër Si gis ku saaga maam Abdou Aziz Si waaw mais kuréel loolu. mais yooyu Macky Sall su ci jëloon responsabilité est-ce que Sonko dina egsi foofu parce que benn nit. commencement bi la moom moo doon président de la commencement bi la lépp man kuréel nee naa ci commencement bi la. tange man mii nii yàlla moo bañ. keroog liñ ma wër def ma ko New York bu doon Sénégal dañ may jam bu doon Sénégal dañ may jam keroog ñemewun ma laal parce que foofu doo laal jigéen mais dañ ma doon tuur ndox ah, parce que caméra yaa nga fa mm-hmm. mais bu fekkoon Sénégal la dañ may jam mm-hmm. après damay perte damay perte may mun a nduur tey deret jii mu tuur yëpp am na sénégalais yoo xam ne ay moroomu jigéenam yu naan dafay fekk li tax ma ne jigéenu Sénégal ci esclave yenn jigéen ñi ci esclave la ñuy dee ci raxas tànku góor lañuy ñuy dee eh, sa àjjana mi ngi tànku ndey mais toroxal jigéen put may mën a nduur down kura maki mu ñu sotti ay ndox ngay tàccu ci jigéen loolu same on jigéen ñu koy def dañu war a nekk benn tey ba ñu reyee sunu doom yi bu ñu jugoon ñun ñëpp def benn takku say waxuma la état waxuma la Macky Sall mais lii du am tey est-ce que tay li nga ko waxé Macky Sall jàmm la bëgg mhm. ñu delloo soit lepp ñu indi ko mhm. képp ku yéwo Sénégal jamm nga bëgg kenn mhm. yéenewul kenn mu nekk kasso mais est-ce que façon bi mu ko défé dina indi jamm est-ce que mi ngi sóoraale les conséquences parce que bala amné bi dañu libérer lu tollu ci 344 détenus libération 344 détenus yooyu moo jural Maïmouna Ndour Faye naroon ñàkk bakkanam ndaxte ci kàdd bu mu yëkkati la ñu jëpp menacé ko ñi ko menacé nag dañu wane fi ñu faytee parce que ku ci tekk da nga jël sa nataal def ci Bassirou Diomaye Faye mbaa Ousmane Sonko Diop Taïf taxaw ne jëmm jooju ngay wax du ma tudd turam yàgg nañoo fenal yàgg nañoo chargé mu yëkkati agenda nee na fukki weer ak benn ak juróom fukki fan ak juróom-ñaar yi ma def kaso recensé naa bépp journaliste ak bépp une boo xamante ni bind nañ ko ci Mm-hmm. kooku yëkkatiwaat ay menaces brandir ko te eggooguñu ci loi d'amnistie kii di Ndiaye Touba ne Maïmouna Ndour Faye pareeguñu ci moom suñu jógee ci moom dina xam ne jóg nañ ci moom ñu xëy bett Maïmouna Ndour Faye 3 heures du matin daal di koy jàmpaaka mm-hmm. est-ce que tey Macky Sall loolu loolu tënku ci loolu daal di retirer loi bi ne nit balaa muy changer foog ma xool ni que mentalité ndax bëgg na changer Alpha Blondy wax na ko. Mm-hmm. seuls les imbéciles ne changent pas. Euh, Tange. li ngay wax nii. man dama koy xalaat Tange man. man damay Macky Sall ba su ma koy wax sax mi ngi mel ni ma naan géej gi dafa am xorom ndox mi mais am na yoo xam ni xamuma xamuma Macky Sall ñu muy waxal xamuma luy xalaatam su ma ko mënoon a jot am na yoo xam ne dañ koy nëbb Macky Sall am na yoo xam ne dañ koy nëbb Macky Sall ci réew mi du ko xam jour bi ma njëkkee wax président Macky Sall Tunkara dalay lay saaga xam nga lu ma wax ndax Tunkara 2S moom may saaga. <laughs> Tunkara 2S. kon xam nga ne xamu ko. ndax Tunkara s moom may saaga. ma ne ko non du Tunkara 2S ma ne yow kii xamul kii kon te Tunkaraa ngi naaw ma ki xam na ma def may saaga xamu ko. xamu ko mooy que man mii nga xam ni dama sës ci Macky Sall rëkk bés bu ne ñu menace ma bés bu nekk ñu menace ma sama life dafa yàqu. am na foo xam ne mënatuma fa dem lépp ngir makki Sall mais am na décision yoo xam ne man xawma lu tax mu jël ko waxuma ak Macky tooguñu ñun ñaar su ma toogee ak Macky dinaa ko laaj ak dinaa ko wax lii mu def ak ni mu rakkaajoo fan yi benn ci man man mii nitam gi jigéenam bi ñi ngi may bëgg a rey ci jamono yi nee nañ ma dañ may butti am na ku ne mi ngi jóge euh, euh, Murit fii muritani ñëw kese pour man mu ngi nii ma yor

ndax ba mu jëree parole wax na ak man sax ne na ma Coura Macky li ngay wax dama ci ànd parce que barki démb sama kanam New York bañ lay humilier tey tamit sama kanam encore fii ñëpp toog ñuy ŋànk réew mi loolu nag xaw ma ndax wax na ceeg Macky Sall xaw ma ndax waxu ceeg moom mais jigéen ñi amul kuy jigéen ku nekk benn euh, euh, APR wala Benno Bokk Yaakaar di député ku ñu menacé wul erbini ñom nii ñi ngi leen di saga di leen menacer té tamit fi ma lay mëna wax ci député yi moy amul yalla rek nak moo tax may wax ndax amul kenn nak fofu nak ko xamni ragal ko mu ragal ma mais dañu ko voté ak nakar ak metit ak ak triste wallahi yalla mi ngi may dégg dañu ko def parce que dañu nañu ñu lañu bëgg ah. mais député yépp jooy nañu doomu jàmbur yi dee jooy nañu business su jàmbur yi mais Macky Sall daf nu ne lii bu nu ko defee xëy na lii nii lii di ñëw dootul amati mais mi ngi am. mais su amee ñu ko jooy mooy député taxawu Sénégal la ñu gis ci seen ay plénière ñu taxaw carrément nekk ci côté askan bi. Mhm. mais tey ku mel ni sëñ Abdou Bara Dolly bi mu yëkkatee kàddu lu tax muy voté. uniquement pour Sonko génn kasso mom xolatul askan bi tay ban jangat nga am ci position bobu nga xamanteni Abdou Bara doli yekati nako ci kanam askanu Abdou Bara da fay politique Abdou Bara doli ñono ba ci man fekk ma loi bi dama bëgg nga voter ko maniko demal nga tok barki dem nga fi yak Macky Sall lan fo tok ni Macky Sall la tej Macky Sall la la da nga disrespect njitu rew mi wax lu ñaaw tay nga taxawat askan bepp taxaw nga ni Macky Sall li mu wax ànd naa ci jàmm laa bëgg parce que dafa dem TFM mu ne am nepp bi moom da ciy bokk kon loolu moom moo tax moom mu voté ko nee na moom bokk na ci parce que dafa nekk provision lii la wax kenn ku ci nekk fu mu nekk nii sa intérêt bi ngay daw. baara condamnation yu tegu seen dot quoi. ay contrôle judiciaire yoo xam def nañ ko ci diir boobu. moom waaw kay moom loolu la wax. Macky Sall la amul benn ministre am bu muy couvrir Tange wallahi dafa defe ni bu defee lii rek jàmm am